ah ndeysaan salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. waaleykum salaam nañ di leen nuyu ci beneen section édition tamit. di nga xamante mooy di morning show di ziar di delloo ziar ñi nga xamante ne ñooy askan Sénégal bi yëpp ak diaspora bi di nuyu nag sama jigéen ñuy jomba ñaar ñi nga xam ñoom laa bokkal plateau bi di Black Queen macha allah. ci sa lingeer macha allah. dañ wax ne bu jumaa mubarak di nuyu askanu Banjul ñëpp ak fi ma xamante fa laa bàyyee ko fekk fa baa di Tabakuroot Banjul North di nuyu his excellency the president of the republic of the Gambia sa Adama Barrow di ko ndokkeel ci bës bi nga xamante ne Gambie ci la am boppam di ndokkeel government am di ndokkeel kilifa diine kilifa aada yi xam ne tey jii 18 février 2022 tombel juma mubarak tombel friday bi ñu ñaanal réew mi jàmm di ñaanal ñu nekk ci réew mi jàmm di ñaanal waa réew mi nekk bitim réew ak réew ñi wër yëpp di di ñaanal jàmm kon na asalaamaaleykum wa rahmatullah tey noonu laay duggee te noonu laay nuyoo tey nag caat ñëwul ñu ziar rek di ziarante rek monsieur Bathily ziar naa la bu baax omi suma boos maam yaa maam nuyu naa la aaw dafay mat aaw aaw këram aaw yaay aaw yaay yaay yaay xale ziar la bu Um, thank you so much, uh, Burgewell, uh, for that uh, beautiful introduction. Mm-hmm. Uh, it is definitely amazing. Um, Assalamu alaikum, I'm Kontona, Kontona, indeed a special day in the history of our beloved nation, the Gambia, uh, because today marked uh, the 57th in independent anniversary uh, of uh, the Republic of the Gambia. On that note, uh, just a quick reminder to remind uh, every Gambian sitting over there about powerful words that were actually um, enshrined in our national uh, pledge. It is the combination of government and people working together in unison harmony that will lead us to achieve the progress that we all desire. We must stand together as one people with one goals and move forward as one nation. For if we insist on pursuing our collective objectives and responsibilities in mind, then indeed we shall be divided and divided we shall fall. Let us renew those promises we made to ourselves and to our country at the time of independence as enshrined in our national anthem. These are definitely powerful words dedicated to all the Gambian people, you know, and to the Gambia government. Thank you so much. This is Black Queen. Sister Linger, Burgewil, Nuyunale. Juma Mubarak. Juma Mubarak, Black Queen, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbokki àddina wërngal képp kenn ku ci nekk sa tur ak ci sa sant di wax fépp fooy mën a nekk rek jàppal ne eh, sukkan nañ ci sa ron jox la suñ loxoy xol di la wax asalaamualeykum ah, di nuyu njiiti réew mi His Excellency président Adama Barrow di nuyu soxna yi njaboot bi macha allah ak képp koo xamante ne nii yaa ngi ci ronam ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy kilifa diine yi kilifa aada yi suñu limee rek duñ matal waaye dinañ ki nga xamante ne moom mooy njiiti ñëpp macha allah di suñ papa di alaaji imam Thierno Ka foofu ci diwaanu Hadintine di ko nuyu di nuyu soxnaam ak njabootam macha allah. Ah, dañuy doxantu ba ci hôpital bi rek di seen ñi fa tëdd di leen ñaanal yàlla fëgg seen bopp yàlla saafara leen di ñaanal ñi feebar nekk ci kër yi yàlla fëgg seen i bopp ah, naka noonu dañuy dem ba ci prison yi rek di seet ñi fa nekk di ñaan yàlla génne leen fa waaye tamit bu ñu def leen lu tax ñu delluwaat fa Ah, di ñaanal ñi nga xamante ne ñoom ñooy waaye jiitu yi yàlla oyofal suuf ci seen kaw jégal leen seen baakaar yóbbu leen ajjanay fi daw si di ñaan yàlla teg loxoom ci njaboot bi ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo fi nekk ñuy tukkee fu waaye mën a nekk ci àddina rek ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax a baax a baax ah, di wax ne kii wax ak yéen nag mooy Linguère jarul muy présenté boppam yéen a ma gën a xam ah, tey nag bési indépendant la ci Gambie mu nekk 57 years bi Gàmbi momé bopam ak légui ñu ngi ciy doole sant yalla di ñaan yalla mu yok lolu yok jamm bi nga xamanteni mo nekk ci réew mi sutura bi nga xamanteni ni mom lañ fi nekké wayé tamit di ñaan mu defal ñu lo xamanteni ni sutna suñu na ki nga xamanteni mom moy njité njiite réew mi ko fi ñu ngi ñaan yalla mu yagga ñu jité di ñaan yalla lepp lo xamanteni ni mom moy mbébétam ba tax mo xëccoo li nga xamanteni mom moy togg bi ko ko ba mëna liggéey Gambia forward parce que ñun ñëpp loolu la ñuy ñaan yàlla loolu lañ bëgg kon yal na yàlla defal ñu ko ñu ngi wax nag nii lañ ubbee émission bi ah ngeen teg si seen loxo rek parce que li ci kanam moom rawali bët saa yu ñëwee rek ñu def lu bokkul façon tey nag épisode 22 lañ indi ah du yomb nag Banjul di capital la fii ci Sahel Network di nuyu nag ki nga xamante ne fa la ñu waroon a njëkkee ah, di Mr Thily ak soxnaam di anti omi ñu ngi leen ay nuyu ak njaboot bi ñëpp macha allah di nuyu staff si nekk Sahel. rawatina ñi nga xamante ne ñoo nekk ci machine bi Moussa Adja Aysatu Ibrahima with orders yéen ñëpp nuyu nañ leen macha allah la demee. Definitely. Um, Linger, you have said it all. Uh, yeah, before so Simon Minkaladorong, uh, we will uh, just bring to you our first topic of discussion. Uh, we just open the conversation with that. Mbola Kaladorong, so I'll not have news then when we come back, we discuss.